victime qu'est-ce que ça veut dire exactement Wow, <coughs> encore une fois de plus je euh, remercie di remercier bu baax mhm. j'ai eu un immense plaisir quand même de me retrouver sur votre plateau plaisir partagé parce que tout simplement les Sénégalais et les xamante ne mhm. dañoo xam ràññee bu baax entités yi au service du peuple y a groupe Kéwoulo chez la BOKO. il leen di remercier di leen encourager bu baax a merci beaucoup di remercier suñu doyen le grand patriote. Gay Para encore une fois. di encourager suñu jeune frère. bi nga xamanteni il a effectué un long déplacement pour mm. aller chez nous. donc le lieu firnde na ne lii patriotisme. Mm. maintenant au-delà de ça pour revenir à votre question qui est essentielle. nous, mm-hmm. ay sénégalais d'abord, il faut que nous comprenions ñu que ay sénégalais nous ñu xamante euh, Sénégal mu nekk dëkk bu baax mu am benen xar-xar kanam mo ñu soxal. Mm-hmm. té lolu pour mu mëna am il faut que justice bi mën a sans la justice. Nous ñu bëgg yépp mënuñu ko en termes de développement donc nous, si nous ñu tollu nous tay ñi wax collectif c'est parce qu'à un certain moment le Sénégal s'est retrouvé au bord de la dérive du régime Macky Sall il y avait du n'importe quoi Il y justice bi état bi fi nekkoon dañ ko salfañé di def lu leen neex il y avait de l'impunité ay népotisme fi impunité impunité ci ban côté. impunité. ci benn boor wala ci beneen bord, parce que si jamono jamono ji ngay wax leen une ay détenus yu bari ñu jàpp nous mu ñu feesal prison yi ba nit ñi mënuñu nous ci biir prison bi. c'est-à-dire que beaucoup boo déggee ma naan la impunité ci côté mooy fan la y a des gens yoo xamante qui travaillent de façon solidaire conjointe avec l'autorité qui était là ñooñu lu ñu def rek baax na. dañ mhm. contrairement des gens comme nous même si nous sommes secrétaires, donc il y a problème L'impunité, impunité maanaam loolu une injustice la idée. alors si nous nous avons tous noté au Sénégal qu'il y a des victimes il y a des il y a des dizaines de martyrs il y a des milliers de victimes qu'on a noté ici au Sénégal le régime Macky Sall. Mhm. alors Dieu merci avec ce nouveau régime là on s'est dit que maintenant il faut créer un collectif nañu taxawal un collectif qui regroupe toutes les victimes du Sénégal sans aucune exception ñu taxawal ko il y a de cela deux mois au moins trois ñu ngi dugg troisième mois. mais balaa ñoo ñëw ci taxawal bi dañu gisoon li fi doon ni ñu doon jàpp nga naan ay milliers de victimes ñooñu ñëpp bu ñu xoolee bu baax a baax Pastef alors que ay partis politiques yeneen ñu ngi fi woon ci absolument c'est loolu dafa loolu moom lu parce que victimes yi c'est vrai la major comment dire euh, la majorité presque Pastef lañ nekk mais il faut noter que aussi il y a des gens il y a des patriotes qui ont ni ils ne sont nulle part nekkuñu ci Pastef politique mais peut-être injustice flagrante bi ñu gis ci réew mi lool mo leen neexul mo leen jaral ñu ñu dem sur le terrain ñu japp ñu mais bi combat bi c'était un combat politique. Mm-hmm parce qu'il y a un leader qui veut neutraliser à tout prix Mme Macky Sall il voulait neutraliser le président Ousmane Sonko à tout prix comme il l'a fait avec Karim Wade il a réussi et il l'a fait également avec euh, Khalifa Sall il a réussi donc il n'y a jamais deux sans donc l'égui, Ousmane Sonko lay jëm L'olu, le sénégalais il taxaw ne Ousmane Sonko du Macky Sall du Karim Wade Ousmane Sonko également Khalifa Sal trop c'est trop sénégalais alors mu avons lo ne xam nañ jamono comme nous doyen euh, Para moment dafa moment très difficile ci sénégalais notamment les responsables les sympathisants du passé ou bien les Sénégalais épris de justice mais le lieu si nous demee ba le foofu comme ni ma la le Sénégal nous sommes tous. Le Sénégal nous ñu le bien-être des Sénégalais loolu moo waral on s'est battu D'accord, c'est vrai que vous vous êtes battu bien ngeen toll alors nous gis ni euh, changement de situation peut-être daa am ci li nga xam protocole bu bu Cap Manuel bu ñuy wax à chaque fois di ko wax moo waral tey changement am ba Macky Sall dellu ginnaaw et tout ça ba ñu nangu sax li nga xam ne moo di loi d'amnistie te yow yaa nekk li nga xam ne moo secrétaire collectif collectif wu victime wu euh, Macky Sall yi alors ñu def benn loi d'amnistie boo xamante ne daanaka mën nañ ne effacé na lépp loo xamante ne moo fi xewoon naka nga gisee loolu. bon d'abord li ma gisee li ma ci aspect boobu li ma noté mooy. Mirmi, c'est facile à régler à mon humble avis en tant que secrétaire général du collectif et en tant que responsable du passé mm. et en tant que peut-être je ne suis pas un je suis un profane en droit mais quand même de waxtaan avec les concessionnalistes, avec les juristes éminents de ce pays. Mm-hmm. Euh, la loi d'amnistie c'est un engagement politique volonté politique là, à la fin de de toutes les dérives pour effacer crime crimes def question de volonté la la loi d'amnistie à l'Assemblée nationale avec ses 94 députés contre 84 députés si je ne me trompe pas de l'opposition pour mu jàllale ko c'est on est tous d'accord mm-hmm. mais ce que je en tant que responsable politique du passé man confiance que ma accordé le président Ousmane Sonko du PASEF avec le président Bassir Diomaye Faye du Sénégal man gëm naa protocole boobu bi ñi wax non donté sax amna Macky Sall sabab mais j'ai la certitude que le président Diomaye y compris son premier ministre Ousmane Sonko ñoom dugguñu ci ci euh, comment dirais-je deal d'accord c'est vrai qu'il y a des il y a des émissaires c'est-à-dire qu'il y a des il y a des il y a des y a des gens qui ont jot nañu waxtaan seen. pour parler quoi pour parler. pour parler mais j'en suis sûr et certain que Dili Menon, Ousmane Sonko président là, il y ci bokkuñu ci. d'accord et maintenant pour terminer pour voir la la loi d'amnistie là, inshallah, on est en train de tout faire pour que état Sénégal abroge cette loi là peut-être avec le temps. Inch'Allah, parce que question de volonté la. assemblée bi peut-être bu ñu demee ba ñuy tas. ba ñu am xar kanam bu bess <laughs> benen xar xar kanam bu bess bi. là nous aurons l'opportunité quand même d'approcher cette cette cette loi d'amnistie comment fantaisiste. d'accord voilà merci beaucoup alors nous ñu la loi d'amnistie ñu le protocole Cap Manuel bi mo waral lepp alors que protocole bi bu ñuy wax ko ci melni ni Bougane wax day melni li fa xew dañ alors que ko ben xam nañ ni protocole bi c'est vrai que mais le contraire moy que Ousmane Sonko alors que président Macky Sall euh, est-ce que jarna ciow bu muy bañ dañu sacrifier Sénégalais loi ba dem négocier ak Macky Sall. man protocole Amna, xawma protocole amul ndax wax mhm. wax protocole bu amé wala bu amul bañ Macky Sall ci wax qui di le premier ministre Ousmane Sonko ou le président Diomaye. déjà wax nañ ci ba paré kay. comme liñ ci wax sénégalais yi dégg ko man fofu la mëna yam <laughs> waye dal li nga xamné man moma ci concerner en tant que sénégalais et épris de paix et de justice nekkuñu ci dëkk bo xamné fi li fi xewon képp ko xamante ne taxaw nga né impunité war na mën am ci li war nañ ko bayyi noonu mu sédd comme ça. Mm-hmm. ñu juboo kenn ku na joxante loxo rek ñu dëkk bi continuer ñu bayyi mu sédd c'est parce que en réalité. dundoo li sénégalais yi dund fii sa mbokk bokk ci wala sa sa sa sa bokk ci wala sa yaay bokk ci fii ñëpp victime lañu hmm. bu dee deux sax def nga ko prison victime la hmm. nga ci tey ji am na ñu ñun tëj ñoo xam ne su fekkoon ne la ñuy wax dafa arrangé woon nguur gi kenn du leen tëj hmm. nañu waxante dëgg rek li fi yàqu ñun dafa am yoo xam ne dafa ne fang Sénégal yëpp teg ci seen bët crime de sang bokkul ci li ñu amnistie nañu waxante dëgg heure bi fait. na eh, la mais El Mosquito duguna na mo ngi lay nuyu. El Mosquito borom yoy ma ngi lay mhm. mhm. ñi def crime de sang. bokul ci amna heure bi nous na mhm. ñu mettre sous mandat de dépôt. en oh. attendant les événements bu ko sax victime sen xol bok dana xawa dal touti parce que ñom xamuñu ku bal amu ci batu bal mo fi amul président Sonko na liñ ko ak lañ ko yóbbu ak lañ ko barricade këram ak lañ ko yóbbu moom baale na jomaay lañ ko tëj moom baale na mais patriotes yi ak sénégalais yi nga xam ne duñu patriote duñu dara dañoo ñëw rek jëf am seen engagement ak seen détermination baalewuñu tey baalewuñu ëllëg oto yu jóge siège APR bëgg nañu xam oto yi ñan ñoo ko moomoon ñan ñoo ko doon dawal kañ fa amuñu matricule amul dara mhm. nan ñu wax oto yi fu mu jógee ak ku ko jënd ak nu ñu koy jëndee. nervi yi ca nekkoon identifié nañ leen nañu génne liste ba ñan ñan la kan moo leen recruter ña leen jox gorna yi ñan ak ñan la pour ñu dal ci kaw askan wi nan ñu wax quatre-vingt-quatorze yi añ jëndoon arme dugal ko fañ ko war a dugal. ñan ñoo ko 43 euh, milliards yi ñu wax kan moo ko jënd fan lañ ko jëndee loolu sénégalais dañ ko bëgg a xam ci ministère de de de de lan euh, euh, affaire eaux et forêt xaw ma affaire. protection de l'environnement de l'environnement. Mm-hmm. te Clédor Sène di nan ñu wax numéro 9 bi yaron arme bi sol civil di tiire ci askar wi moy kan. ñi koy laaj bari na deug mais da demande sociale nan ñu wax auto bi yabon heure bi ci weex medina melni ku deug ci bop xalé bi melni ku deug ci bop muus wala xar nan ñu wax auto bobu chauffeur bi ko doon dawal ci ñan la nan ñu wax ke tiire boy bi yoroon drapeau bi asalem til mu daano parcel parcel nan ñu wax kan moo rey Burama suñu doom boobu am 13 ans bi njona doomu euh, Vieux Sagna di sama doom ak Bala mi nga xam ne ma sama soxna ñoo bokk benn bàyyi. ak cas yoo xamante ne cas de torture yi ñu def Abdoulaye Touré oto dàmbooj bii ay nit ñu taxaw fi yor ay armu automatique mel na ku nekk Texas sax meluñu noonu mel na ku nekk jëmben fu dóor ko ay rafal dàmboj heure bi ndem si yàlla dàmboj lañ doon wax mais dafa daw parce que yàlla moo soxlawul bakkanam tey jii moom nee na baalewul dëgg moom dam moom xalaatul sax di baale nañ ñu wax oto ba ñan la vidéo de surveillance yi nañ ko génnee wax ñu ñan ñoo tiire ci kaw dàmboj sénégalais yi lii lañ soxla tey ni may toog nii di fi ko wax nii bu am na fii euh, six mois ci ginnaaw ku ko ci waxoon tey fii jël nañ la yóbbu la kaso si si mujj gi dañu considéré woon yi comme ay bétail loolu la ñu wax plus jamais ça nguur gi fi nekk sax duñu leen may loolu dama ne nit ñi dañu leen respecté nit du du du mbaam nit du mala bañ koy jàpp di ko def yenn torture yi fii pays de droit la état de droit la ñu ne convention des droits de l'homme Sénégal bokk na ci pays yi ko njëkk ratifié ci àdduna est-ce que du ñu nekkul numéro deux ñu ñoo nekk numéro trois kon fii pays de droit kenn duñu ko jàngal justice bi doon def loolu nag nekkoon fii même juge yooyu même magistrat yooyu ñooñu ñoo fi nekk ba tey kenn changé wu leen. donc bëgg nañ ñu raxas justice bi ba mu set wecc. Mhm. assemblée bi nga xam ne tamit ñoo fi voté loi bu bon boobu nga xam ne dañoo xëy dem seen yoon président Macky Sall su fekkoon ne doomam mi ngi ci nañ ko wax nan ñu wax kan moo dem Grand Yoff. maanaam Macky moo voté loi parce que moo am majorité bi. moo am majorité moo ko voté nan ñu wax Grand Yoff Jakarta yéen doon jël jox ko booy boobu nu mu tuddati. Euh, mhm. xaw ma nit lan la am tur turam bu doy waar. moom fan sant yi. Dof Ndeye kan moo ko doon jox xaalis agrémenté ko jox koy Jakarta pour ñu def seen groupe ay genre milice yooyu di dóor ci kaw as ñu Sénégal yàlla ñu dimbali mais dañu doon dugal ci phase guerre civile. Hmm. alhamdulilah rabbil alamin ba ñu nekk peuple bu mature. ba Macky Sall daan ñu wax sax naan ñu réglé wul ñeneen dinañu jël. kenn du ko jël kudul population bi ñooy ñeneen ñi. yor seen carte xool ku leen neex ñu fal ko ku ñu neex xam nga mooy kan président Diomaye mu ñëw jox ñu premier ministre ku mu neex ak ku mu naqari peuple bi ñoo ànd fol leen te kenn nekkul seen ginnaaw. Mhm. te li tax ñu fol leen du dara lu dul injustice bi ñu jël xoqatal leen pousser leen ñun ñëpp loolu moo ñu dugal Pastef ñun bokk ñoon Pastef. Mhm. gisuñu su woon sax suñu bopp. Mhm. suñu yoon newu woon dañu nekkoon citoyen boo xam dañu doon dox ne lay dugg man laa woon. ku ma xam man gay paara xam ne ban affaire wu ay civisme yooyu ban ma dugalee ci kaaf bi ba ma génn ba bokk faa patriote yi ba génn ba ma génnee ci laa dugg. lii moom ma ci dugal du leneen. engagement boobu laa ci dugg ba defoon naa sax danañ ma dugalaat une deuxième fois parce que Sénégal toll na foo xamante ne kenn du ne déedéet te ku ma gënoon na nekk copain wu Macky Sall amul. d'accord ku ma gënoon nekk xaritu Macky Sall ci kaw suuf man maa ngi nii Gueye Paara amul mais gi nga dëgg yàlla moo ko moom su doon damay topp wala ay biir de banque lay ut kon heure bi bolé nañ ma sax ci liste ñi nga ne ñoy euh, parce que dama jégué won la gars la jabaram. Hmm. mais dëgg yalla ko mom boy and ak nit nekkul ci dëgg da ngay am courage génn hmm. d'accord ma génn jël sama engagement génn leen ñok à am ak seen lepp ma je heureusement. fama nekkon lima bolé c'était pas des activités politiques parce que fofu vous, mëne politique parce que amna lo xamné métier que je que euh, politique day jaar ni nga jaar ni hmm. di relations personnelles. mais nag bu demee ba bëgg dara yow da ngay xamaat sa bopp nekkaat citoyen nekkal fi réew mi nekkal fi askan ñu loolu la ñu soxla. d' accord Birane Samb doomu baayu Ange maa ngi lay nuyu ñun tam ñu ngi lay ziar yaa ak Abdou ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax alors Ange mu ngi noonu moom nag nee na faaw ñu xoolaat loi bi parce que gis nañ ni jamono yi nga xamante ne sénégalais xiifoon nañ euh, dund bi seeroon na. metti na ngay romb di gis ay pick-up yu bees tàkk mu wóor la ne lii c'est pas gratuit si alalu réew mi lañ ko lañ ko amee su ma ko mënee waxee noonu Sénégal nekkoon si njaaxle pour lan bëgg am liberté réewam euh, est-ce que tamit loolu war nañ ko bàyyi mu sedd maanaam loi d'amnistie bi est-ce que aussi sàkkuwul peut-être li Sénégalais yëpp bëgg jamono ji mooy mandat d'arrêt international président de la République Macky Sall donte que autorités yu bees yi àddooguñu ne moo di mbiru Macky Sall man ba tey dégguma sax euh, ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko mi <laughs> doon euh, sonal wax ci moom alors que peut-être keroog gis nañ président Bassirou Diomaye Diakhar Faye peut-être wax ci li nga xamante ne moom la fekk ci réew mi mais euh, xuusu si bu baax a baax est-ce que tamit protocole boobu ñuy wax aussi deful effet ba tax Macky Sall mu nekk koo xamante ne il est intouchable <laughs> damay damay encourager monsieur Dabo ci euh, ah, seen taxawaay par rapport ak euh, collectif bi mhm. man damaa jàpp ni rek euh, réew Sénégal ñëpp a war a bokk ci collectif mhm. parce que damaa mhm. gisul sax kan moo fi nekkul victime ak ban secteur moo fi nekkul victime xanaa ñi nga xamante ne ñoom ñoo jegewoon wala ñoom ñoo nekkoon ci nguur gi parce que ñoom weer bi dee dañuy feyeku mu bañ a dee dañuy feyeku sinon jaaykat jaaykat voilà parce que jaaykat table bi yi nga xamante ne dañ doon xëy chaque jour ñu taaj si seen buntu kër ay ay dafay jaay moo xam dugg wala caaf victime lañ ñooñu ñëpp ay victime lañ parce que am na jour mm-hmm. yoo xamante ne kii daantoon am connexion daantoon am boo ñëwee tamit fii nii da ñëw toog nii rek ba heure wàcc jot nga dem ñibbi doo xam ni ngay ni ngay mm-hmm. nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ay ba ci élèves yi sax parce que temps enseignants yi toog seen biir kër yi dem ñu école moo tax ma ne la ba damaa jàpp ne Sénégal yëpp a doon ay ay ay victimes moo tax combat bi nii dama damaa jàpp ne rek ñëpp ci war a comme Guèye mu ngi ko doon rappelé sànq léegi man je ne peux pas comprendre quand même ci benn dëkk boo xamante ne yow da ngay xëy rek jàpp nit yi dem dugal leen ci biir kaso ba pare toog ba euh, euh, heure bu la neex nga ne leen dem mel na koy xar te ci ñooñu noonu bokk na ñi nga xamante ne lañ fi ji ay terrorisme ñii nii ne Casamance lañ jógee ñoom ñoo nekkoon ci àll bi rebelle yi ñoom lañ jëlee Casamance indi lañ ci Dakar ñi ne ñii ay force occulte lañ cocktail Molotov amoon na fi ay jamono donc je ne peux pas comprendre quand même du jour Hollande mais nga xëy benn jour rek nga né lolu yépp lu fi jotoon xew yépp lañ koy amnistie ak ñi nga xamante ne seen ñàkkoon seen seen seen bakkan euh, imaginal ben benn benn waaju bu nga xamantene da nga jur sa doom am ci mom yaakar né suba bu magee mu xétal la ñu jékki-jékki rek mu dem ci parce que dafa dem réclamer benn droit rek ñu boom ko mhm. donc dañu warul tollu ci benn dëkk bo xamantene bo défé boo defee manifeste boo manifester wala bo né man d'accord ma ci li ñu torturer la wala ñu dóor la bal fetal ba paré ki la dóor bal fétal ñu ñu ne yow demal toog sa kër wala kenn du la top ci lolu lolu mo fi wara jé motax man yàggoon naa di koy wax depuis bi ñuy balaa ñuy voté loi amnistie bi nii ma ne lii nii ñu ngi koy bëgg a forcer mais tôt ou tard nañ ci ñëwaat. nañ ci laalaat parce kenn mënul nangu.

bu ñu sukkandikoo ci yenn ex détenus yi ñu ne dañuy jël cocktail molotov bi teg ko sa kanam ne la fotowul ak moom par force pour wane ni yow yaa moom affaire yi alors que ex détenus yi nee nañu carrément loolu ñoom ñoo koy indaale teg ko seen kanam photo ak ñom pour ñu ne ñoom ñoo ko c'est des terroristes oui mais lolu yépp ay ay ay ay ay manœuvre la yoo xamante c'est juste pour dire que pour féetali ko ci ben ci ci ben côté mais li nga xamantene ne ñëpp teg nañ ci seen bëtt ñu gis ay nit ñoo xamantene da ngay jékki-jékki rek gis gis nit ki mom mu daanu te mu wër la né kii ni bal fétal bala bal rey lañ ko tiré ba pare lolu yépp nga né dañ koy faase ci ben loi mm-hmm. gis nga ben bépp loi ba fi mëna voter amna am régime nga xamantene mëna ñëw mu effacer loolu té lolu lañuy xaar ci régime bi nga xamantene mom mo fi nek tay parce que bok na ci li nga xamantene ne askan askanu Sénégal voté leen à 54 virgule et quelques pour parce que yaakaar bobu lañu am ci ñom né buñu ñëwé loi bi nga xamante ñi fi nekkoon forcé nañ ba mu jall ñom buñu ñu nañ ci delluwaat motax man dama jàppoon ne rek fi ñu tollu ni peut-être que loi bi sax tay waroon nañ do lo xamante déjà sort nañ ci mais peut-être que loolu yëpp dafa tënku ci benn procédure bi nga xamante ne ñu jaar ci pour mëna a fi nga xamante mm-hmm. fofu lañu bëgg jëm donc mm-hmm. euh, man amna naa né tôt ou tard nañ ci nañ ci ñëwaat looloo tax nak j'encourage vraiment ñi nga xamante ñom ñoo jité collectif bobu nonu ñu dem ci au fond te am ngeen soutien population Sénégal parce que damaa gisul fii ben la famille bu nga xamante ne di nga fa dugg te fa victime moi xam Daniel euh, Daniel deele wala dafa am c'est benn alal bi nga xamante ne yàq nañ ko wala c'est benn mbokk bi nga xamante ne jëlee nañ si ay gaañ-gaañ mm-hmm. te boo ci famille yi nga xamante ne ñoo mais faut ngay xamee le problème est le mal est très profond am na kenn koo xamante ne fii la dëkk fii nii euh, nu mu tudd sax liberté si fii demul ci manifestation yi këram la taxaw kéwlu demoon na fa nga taxaw sa buntu kër bal fetal ñoo fekk la foofu noonu ba satan tànk mais loolu ci ban état la ñu nekk. te loolu noonu population Sénégal dund nañ ko fii ni ay weeru weer yoo xamante kenn ñemewul génn. wala sax booy ñëw sax booy jóge foo xamante bu ñu déggee euh, Dakar am na manifestation rek seen waa kër duñ nelaw chaque à chaque fois dañu lay woo téléphone bu mën a xam ndax egg nga sa kër même boo fekkee ne sa yaa ngi sa biir kër parce que loolu wóorul. donc loolu man je amul benn yoon ba nga xamante ne askanu Sénégal war nañ nangu ci loi bi nga xamante ne loi amnistie la pour ñu bàyyi ko mu jàll ci nii nii nii nii ne parce que tout simplement dafa am benn loi assemblée nationale bi ñu voté kon nañ tëj assemblée nationale bu fekkee ne loi bii nii amul benn njëriñ parce que damaa gisul sax benn njëriñam boo xamante ne c'est vrai am na ñoo xamante ne moom moo tax ñu génn kaso mais ñi nga xamante ne sax ñoom ñoo génn kaso loi bii nii daf leen war a setal wala dañu leen war a setal laata ñu leen génnee ci biir ci biir kaso bi am na solo Guèye loo doon wax bi mu tàngee chroniqueur yi nekk ci télé yi sax di wax nii mujj ne ko invité mun la duma dem nit ñi dañ lay wo suba ngon ay geey bu dem télé dimbal ñu ngir yàlla wax say njabot di la mm-hmm. dañ lay tëj mané nañ ñu tëj mm-hmm. nañ ñu japp mm-hmm. ba mi échauffeur Dakar Seneweb ma doon dem tok taxaw wax carrément li du deug du yoon parce que boobu tamit toll na fo xamni ñun ñëpp a man tollu won na ay temps chaque jour jàppare na sama saga, ak sama lepp ak sama ndox ak xaalis boo xam ne bàyyi naa ci dépense su deux mois pour en cas bu ñu nee ma ciix jël ma yóbbu parce que man foofu laa toll woon. jënd ceeb jënd lépp parce que man booba temps man ba ma duggee ba génn. Ah. man pour man naa dugg rek dem. d'accord nit mënoo toog dund loo xam ne rëcc nga ci ay dee. Mhm. ñu lay jàpp di la xoqatal di la menacer ci ay lacrymogène nag ay dañ lay jàpp di la tëj yooyu nga di ko xoqatal nga bokk ak foo xam ne ay xale yu tuuti. nga nekk ñoom boo yu tuuti ñoo xam ne ñii dañ leen dañoo liggéey ba wàcc te ni mécanicien ñu ne leen ciix jàpp yóbbu leen foofu ak ñeneen ak ñeneen donc traumatisme boobu da nga dem ba ma yàgg ba nga génnee dama ne doon ba may génn ku nekk ay dimbali ñu seetal ci sa njaboot gi bul toog bàyyil plateau yi bul waxati ci plateau yi mujj na ñëpp a daw xanaa léegi la chroniqueur yi bëri nii mais ba bal yi di takk affaire yi di coow mm.

nga war a wax waxoo actuellement ni ku génn wax rek man lay waroo wax. Mm. parce que bu muy métti ñi rey booy fii. Mm. di kërën kërën kenn si yéen nemul yëkkati. temps am jël lépp teg ko ci ndodd Ousmane Sonko jël ah. ko ci ndodd Sonko ak ay martin traité ñu du n'importe quoi waaw dem nañ ba mujj gi sax yow mi nga xam ne mës nga def armée sax yow dañ dañ lay mujj mel ne yow kuy kuy sol sa tenue toujours nga te yow civil nga tu ne l'as pris ci peuple nga bokk da ngay jënd añ da ngay jënd reer da ngay jënd diwlin da ngay participer ci lépp. Mm. buñ lay yóbbu tamit duñ lay yóbbu fële dañ lay yóbbu di la buñ lay yóbbu tamit dañ lay duñ lay yóbbu parce que ancien nga dañ lay yóbbu parce manifestant nga wala kii paa yeeg doon dem manifester man chaque manifestation dama daan dugg dem. Mm. te yow kay bu ñu la yóbboo sa morom militaire yi ñoo la doon torture foofu. waaw déedéet man kenn torture a ah. man kañ ah. bi mooy. ba bu fi ma duggoon de moom fi ma duggoon moom da ngay dem toog ñu joxete ay bidon ndox si dër bi da laa doon tëdd karo yi comme ñëpp. man ak oustaz Assane Seck ni ma tëdd nii. Mhm. yaa ngi may ak ñeneen ñoo xamante ne peut-être ay booy yoo xam ne entassé ñu foofu jaxase ñoo ñëpp ñu jaxasoo douche bi tamit wax dëgg yàlla magam jëm ñu tegal douche boo xamante ne même booy dem WC euh, dangay ngay jàkkaarloog sa moroomu doom yi amul bunt amul dara muy xasaw nga tëdd ko muñ ko dër tëdd ci dër ñu jëkkati yenn saay ci kaw bidon boo xam ne dañ la koy jox bu heure urine jotee magam jëm ci bidon bi ngay saw yooyu yëpp am na mais loolu dañ naan xam nga loolu boo xam nga yooyu détail ay détails la yoo xam ne boo ko defee un mm-hmm. ancien militaire boo xam ne il a fait la guerre dem théâtre de partage c'est comme benn ngelaw lu la fax sec ñu bañ ñi nga xam ne bi wax waree jot ci réew mii dañu ne pat ànd ak Macky Sall ñi naan ko deel dóor ñi naan ko xippil dóor mm-hmm. tey jii tey Sonko falu ak Diomaye ñu taxaw fii yor seeni micro di ko caresser di ko te ba wax jote waxoo fen danga nga bàyyi askan weeg Macky Sall muy torturer def lu ko neex kon réew mi dafa am ñu war a wax chroniqueurs yi am na si ñoo xam ne tamit tey la ñu nekk ci plateau yi toog di wax ak di waxaatu mm. mais bi mu méttee ku leen invité du ñu dem palaato te li may wax ay dem benn ñas bu Seneweb mën na ko mën na ko mën na ko mën na ko témoigner kenn du défendre sunk boo koy défendre ci su ci saa si balaa nga génn léegi gars yi convoqué nañ la woo la te mm. buñ la wooy dugal nañ la ci mbaam bi prison yi fees del kër yi tas yàqu tasoon na nag ba tey gars yi dugg ci pakatan amna ci boy yo xam ba légui dañu am ay traumatisme parce que sen bop yi. Mhm. dafa jaxaso d'accord ben, benn nit subir loolu loolu mel na nguur du jeex. fi nguur yalla rek mo fi dul jeex. merci beaucoup. te man bu li ma ci gëna metti euh Macky Sall c'était quelqu'un bo xamantane suma koy wax sama xol day jeex dama ko jege won moi j'ai fait 14 ans avec lui diaspora parce que diaspora est-ce que bu du woon ñoom aussi président Diomaye Faye dina jall parrainage. bay mais diaspora dañu combat bi.